Setan rajim bisimilah rahmaani rahim jaam maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama xol neex na ndax am tey jii yàgg naa koo bëgg ko am mangi ngi ñaanal na woy ngom fa mu tëdd yàlla na gënal fi mu jóge ndax xam naa tey bu doon gis ñaanal bintu Mm. yal na ko yàlla def muy mag tey mag mu mu amu ñam yàlla may ko fandu gudd bàyyi ko jëkkëram Ira Ndaw nag dama koy bàyyi yàlla ndax lii liggéey bi mu liggéey nii liggéey bu mag la du liggéey gone Ira Ndaw na la yàlla fay coon Seck maa ngi koy ñaanal yàlla fan wu gudd bu ànd ak wér yi ko bàyyi yàlla boo gis loola jaax ak sa kër gi yàlla na nga toog ba di ci raam ki ne Juuf dama koy bàyyi yàlla ndax rôle bi Fatou Bintou def ci moom la ndax dëgg la ki ne Juuf say doom déggal nañ la ba loo leen sant ñu def ko yal na la yàlla lafal cat yal na nga fekke lépp maa ngi ñaanal Assane Ndiaye yal nañu yàlla musal ci seytaane te bàyyi kook magam Assane Ndiaye sa maga ngoog toppal sa mag maa ngi lay ñaanal di ñaanal sa jabar ndumbe caam yal na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm te yàlla may leen fan wu gudd wu ànd ak wér alhamdulilahi rabil alamina allahuma salli ala sayyidina muhammad